pour cent Abdoulaye Ka mooy ndaw yi nga xam ne dañoo ànd ak monsieur le maire di liggéey sëñ Touba comme li Serigne Mourou Mbaye Ndiaye wax dafa war a leer si bopp doomu aadama yi lii du monsieur le maire Abdoulaye Ka moo ko organisé ñun ay ndawam lañ ànd ak moom di liggéeyal Serigne Touba li ñu ñor mooy nekk ay ndaw yoo xamante heure bu ñu séenee dañu xam ne ñun ay ndaw lañ yoo xam ne ay ndaw yi Serigne Touba lañ waaye nag amuñu génn bëgg amuñu benn pas-pas amuñu fenn fu ñu jëm ci groupe Moussa le maire Abdoulaye Ka man a le maire Abdoulaye Ka laa àndal ak képp koo xam ne mu loolu dañu bëgg mu leer du du du propagande du politique du du du lenn ñun ñoo xool ba mu neex ñu ànd ak moom liggéey Sëñ Tuubaa wóowuñu ni kaay la ñu ànd kaay la ñu ànd mën nga ko wax am ñuy siis waaye ñun ñoo xool ba Moussa le maire Abdoulaye Ka day ñuy ànd ak moom liggéey Sëñ Tuubaa loolu dafa war a leer ci bopp ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy yóbbu ñi ngi santaat bu baax baax di santaat yàlla bu baax a baax nag di wax ne nag wax dëgg yàlla dañoo dañoo am contentement bu wér a wér ci taxawaay bi nga xamante ne monsieur le maire Abdoulaye à chaque fois daf koy taxaw ci dëkk bi yaakaar naa wax nañ ko waxati ko loolu moom dañ na àdduna waxatuma Touba man mais dama ne monsieur le maire Abdoulaye li mu jëf àdduna xam nañ ko ñu nangu xanaa ak ñi bañ te yaakaar naa àdduna bi moom nangu nañ ñu bëgg lu baax dama koy wax à chaque koo xamante ne lu baax ñor na nga di nga di nga di nga di nga bëgg monsieur le maire ko ab safaan waaye képp koo xam lu baax ñoro la wala nga nekk nit ku baax di nga bëgg jëmm ji waaw ñu ngi santal bu baax a baax di wax tey moom suñu xol dafa sedd maanaam du ñu mën a yëkkati yenn kaddu yi waaw sant daal la ñuy def di sant na ngi teew ñëpp ndax lii dafa neex ay ndaw lañ ànd ak maire amaana am na ñoo xamante ne lii ñu doon def comprendre ko woon xamuñu woon lu mu doon waaye tey àdduna xam ne li ñuy def lan la parce que tey ñëpp ñëw wuy suñu ak ñoo xamante ni dañuy woot naan affaire yi fan la nan la ak naka yaakaar naa ne ñun li ñu bëggoon a am ak li ñu bëggoon a réussir yaakaar naa loolu moom réussir nañ ko mooy ñëpp comprendre ni maire liggéeykat Serigne Touba la ñëpp comprendre ni maire liberté Serigne Touba moo ko jox te baax te la nga nekk ci Touba teew lii nekkul loo xamante dañoo woote woon ne kaay leen ngeen wuy si waaye day am ñoo xamante ni seenu ak seenu bëgg lu baax moo tax ñu ñëw wuy si musal meram lakkat boo wootee bis nag ku leen damay ñëw wuy si la mënoo ko wax leen lu ñëwal kon nañ xam ne ñi fi teew di rafetlu bu baax nag euh, lii nga xam ne Moussa le maire Abdou Lahad Ka cërale ñu ko ndax gor lu mu la ci boppam rek sante ko yàlla ndax kii ku ne xam ne ne amul jot ku sëñ Touba di liggéey loo amoo jot ñun nag dañoo xam li ko sëñ Touba jaral xam li muy defal Serigne Touba te ñun ñu bëgg a liggéeyal Serigne Touba di ay ndaw te wu defaluñ dara Serigne Touba ci dëkkam bii ñu gis ku koy liggéeyal ñu jël suñu tànk namm ko ñu ni fas yéene ànd ak moom ci liggéeyal Serigne Touba Abdou Lahad ka demandé wuñu ne damaa bëgg 100 pour cent ñun ñi ñoo bëgg 100 pour cent bëgg Abdou Lahad ka bëgg Serigne Touba Abdou ne damaa bëgg 100 pour cent bëgguma groupe ma dam néew damaa bëgg mouvement bëgg ab groupe néew bëgg ku ma àndal ñun ñi ñoo bëgg Serigne Touba bëgg Abdou Lahad ànd ak moom te dañoo fas yéene ànd ak moom ba ca kanam Serigne Touba ndax Serigne Touba lay liggéeyal may sant nag mboolem 100 pour cent Abdou bi a fi nekk ni ma ko waxee woon démb ak barki démb rek fii ay junne néew fi ay boromi xam-xam a fi nekk ay nit yu valeur ñoo fi nekk ay nit ñu diiñ ñoo fi nekk ñu am fulla am fayda nag ab laxat ka li tax ñu ànd ak moom moo ñu ko wan ndax yàllaay boole waaye ay jukkooy am bañ yàlla booleeg moom dafa defar jukkoom ba mën a ànd ak ñu ndax doom yoo xam ne kenn bokkut ak sa morom fu mu juddoo kenn nekk boo ñëw sa jukko nga indaale waaye boole nañu suñu jukko téye kon ñun ameel nañ ko cant ameel nañ ko ngërëm waaye ameel nañ ko mboolem 100 pour bi ndax nag fii rawuma fi ëpp ma fi xam-xam te gënuma leen kon su ngeen ma jiitalee ci seen kanam war naa lu ma mën ak lu ma mënut ma def ko kon maa ngi sant mboolem 100 pour cent Abdou Lahad ci seen taxawaay bu rafet. waxoon naa ko ne ko Pape mu ne ma ne ko man kenn du gaare gaare waale ma man du ma ànd ak gone gu dul kuy dem lay àndal. gone gu ànd ba li ma li xale yi wax rek ku ànd ak man ñeenti at. te gisuma sa avancement booy boo nga dindi sa tour ci place système bi loolu moom loolu moom xam man objectif boobu laa jël nit dafa war bu nekkee fii ren bu déwénee mu ne fee bu déwénee mu ne fee at mu jot mu dox ab jéego boo xam ne mi ngi yëngu ci développement mi ngi dem mais mais foo fi nga nekk di mel ni kuy wër garab rek saa boo xëyee war yendoo daw ba jant bi so nga xëx tëdd boo xëyee li nga xa li nga jëfoon doo ko xam man bugguma ànd ak gone gu mel noonu te gone moom ñett rek moom la war a def saa minute bu mu def ci temps war na ci am ñett yi war na ci am aw yiw wala mu am ci xam-xam wala mu yokk ci ñett yi la gone di wut li ko koy may nag mooy discipline ak engagement ak volonté ak ab yar ak teggin loolu mooy base bi mooy li nga xam ne mooy outil de travail bi gone di wutee pour defar avenir am kon moo tax danaay faral di daje gone yi lu baree baree bari waaye ñëpp xam ne ne sama kàddu sama daje sama waxe gone du neex ndax danaa la wax li lay jariñ wax la li nga war a def wax la ni ngay def ba am dara loolu nag bu dëppoowee ngay nitu principe danga ko dana la dana am lu mu def ci yow bu dëppoo ngay dund bakkan dem du la neex loolu moo tax toujours may wax xale yi ne leen man sama da samay wax ak ki ma war a digal du neex loolu toujours ma di leen ko rébélé mais maa ngi sant yàlla bu baax nag ci xale yii nga xam ne bi ma biñ defee nii ñu def muy 100 pour cent bi dama ne leen ne ma di politique guñ ànd ñoo yow ci politique dañoo ànd ak yow ngir yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ci liggéey bi ngay liggéeyal sëñ Tuubaa loolu na bi ñu ko waxee ma ne tekk di leen déglu di xool nax nit lim wax melu ni nim mu wax melu ni ni jëf la mel te man sëñ Abdou Lahad moo ma yar daf ne nit boo waxi bu jëfi tey bu seeree waxi démbam booy jàpp jàppal nit a nga noonu bu fekkee ne waxi jëfi waxi dembam ak jëfi tayam wuute na booy jàpp bu kooku jarul jàpp te xale yi seet naa leen bu baax nattu naa leen bu baax gis naa ne ñu am nañ engagement ci liggéeyab sëñ Tuubaa bi moo tax li ma leen njëkk wax mooy ànduma ak yéen ci politique ndax politique du métier politique man nag bu politique ñëwee danaa xool ki ma bëgg a aw ci citoyen ngeen yu dëkk ci réew mi bokk ci réew mi te kenn mënu leen cee génne bu politique jotee na ngeen nekk ci seen liggéey ba politique jot ngeen dem seen opte ki ngeen àndal ngeen dem soutenir ko àndak moom dim jàppale ko su jeexee ngeen dellu ci seen liggéey loolu laa leen leen digal te loolu laa ànd ñoom li ma ci gën a neex nag bi ma leen toppee di leen topp ba xam ne ñii li ñuy wax dëgg la ci ñoom comme ni ko Moussa waxee dama dem nag way diw way diw joo gis jàppal diw Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride dama ne ko man kan damaa am ay xale yoo xam ne dañoo takku lool di dox ci Pastef ne dañoo bëgg ànd ak ma nekk ci sama gannaaw di jàpp ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bi ma bëgg nga xam nga xam ko ndax nit loo koy defal na ko xam te bu may liggéey Serigne di lañ dox dëkk bi mu jox ma ko ngay jaw ngay jawri ni sëñ bi nga sëñ Tuubaa sëñ Siidi di sa jawrin def ma jawrin danaa lépp lu nekk ci sama gannaaw danaa war a ko leeral ba nga xam ne ba bu ëllëgee bu ci yiw amee nga xam ne mbooloo mu la doon liggéeyal am na ñëw yiw waaye bu ci safaan amee nga xam ne mbooloo mi da doon liggéeyal suñu borom nattu nañu ab safaan am ne ndax mu mu rafetlu ko lool sant ci lool laaj na ma ñetti yoon ana sa gone yooyu yoo xam ne su ma ko nuyoo damay wax ba meeg rek mu ne ma waa ana gone yooyu ma ne ko ñu ngi fi mu ne ma sëñ bee noonu sëñ Tuubaa boo koy liggéeyal dalay gàttanu ña loolu la ma mujj a wax ci wax bi ma doon wax ak ñoom loolu nag du lu di lu rëy ci man xale yi seen engagement mu ne su ko mu ne su ko toog fii di ko wax su ma ko tàmbalee sax du sot li ëpp solo rek mooy nit buy def dëgg te di ko def ci xol la nga koy accueillir xol moo yaatu ba mën a mën a mën a jàpp lu ne mën a xam lu mais li xol di xam ak lim xel di xam aw làmmiñ mënu koo tudd na ngeen xam ne daal képp ku fi teew képp ku fi teew maanaam bàyyi naa la xel ndax du jataay bii laa xool di xool nit ñi parce que 80 pour cent yi gisuma leen am na ñu toog fee waaye ci biir groupe bi moom amul benn ku ci lancé benn missage bu ma dul dégg loolu moom man di leen ko xamal lu may ñàkk-ñàkk jot danaa toog da léeg-léeg danaa ci nekk 2 heures ba 4 heures di ko déglu ndax nag sëriñ Abdou Lahad sama sëriñ ba nee na woon nit loo koy defal na ko xam nit loo koy defal na ko xam te daf na wala daf ne bëgg yëge koy fay bu kon nag mënuma kenn ku ci nekk ma dem ci yow wala ma woole waaye li ngay wax ak li ngay def war naa koo war naa koo bàyyi xel bu baax a baax a baax donc loolu moom mënuma leen a mënuma leen a ñàkk sax mu ne woon ñàkk gërëm